Mamou Diaby Gassama Mamou. waaw rek <laughs> comme li nga wax rek rubrique euh, gis-gis nag. Mhm. ñu wax ci àndaax kii di imaam aadama Seck ñu war a waxtaanee lii di civisme. Mhm. imaam ñu ngi lay encore de plus ci plateau bi. <laughs> di la ne rek tey nag civisme la ñuy waxtaanee. Mhm. et je pense que Sénégal mooy réew ba nga xamante ne mun nañ ne lii di civisme des na fi lool. ndaxte. Euh, lu ci gën a bëri dañuy yaakaar ne euh, état moo ko war a def or kenn ku nekk war nga doon un bon citoyen te buñ ne un bon citoyen je pense que suñu diine aussi euh, jàngal nañu ko buñ ne un bon citoyen mooy ki nga xamante ne da nga war a am benn comportement bu rafet ndaxte kenn ku nekk war nga doon ambassadeur ci domaine ba nga xamante ne yaa ngi ciy yëngu ngir rek réew mi mun a avancé tey civisme buñ ko wax ci côté diine loo ci mën a wax. Ah, jërëjëf maamu ma ngi suñu nuyoo ak suñu ndokkeel ci waa kër gi yëpp mm-hmm. tàmbale ko ci sëñ Cheikh mi kilifa gi ak yéen ñi jàppalante ak moom vraiment di leen euh, encouragé bu baax nag ci liggéey bi xam nañ ne yombut waaye macha allah gis nañu mm-hmm. euh, li arab yi tuddee as sabr wa mm-hmm. gis nañ ko ci yéen te mooy muñ ngeen li ngeen fa ngeen war a muñe ba waxtu muñ jotee waaye nag teewul la ngeen gëm muy ligne de conduite bi nga xam ne bii moom la leen kilifa ga rahmatullah alayhi alaaji Sidi Lamine bàyyi lool mm-hmm. vraiment ngeen sax ci loolu moom ngi leen ciy gën a di ñaan yàlla yàgg leen cee defal ndam amiin euh, comme li nga wax te mu tey bi li tax mu am solo euh, civisme moom xëy na lu ñuy baat la boo xam ne gone yi sax ñu ci bari miinuñu ko mm-hmm. moo tax pour ñu xam ko ba mën koo dund du yomb ci ñoom mm-hmm. loolu nag xëy na am na ay explication yu ko waral euh, dinañ ci gën a dellusiwaat waaye dafay lu am solo waaye dafay lu mënta ñàkk ci société. Mm-hmm. nit ki ci boppam xam lan mooy warugaram te civisme bi boo ko doon firi ci baatub wolof. Mm-hmm. pour mu leer. Mm-hmm. maanaam euh, luy jagal penc mi laa koy firee man. luy jagal penc mi loolu nag dafa yaatu. dafa yaatu lépp loo xam ne lii nit ki bu ko defee nit jariñu ca te du ca loru. loolu ma ngay jagal penc ma. lépp loo xam ne nit ki bu ko defee mbaam mu wax ko. wala mu xalaat ku bindu nit jëriñu ca te du ca loolu rek jàppal ni loolu mooy vrai civisme loolu nag dafa yaatu moo tax mu nekk loo xam ne dañuy bëgg mu nekk lu ñuy lu ñuy laytaay lu ñuy laytaay maa ngi maa ngi maa ngi fàttali rek ne école yi ba léegi ñu ngi ciy jouer seen rôle yàggoon na daan nañ ko def ñu toogoon ab diir mu mel ne matière boobu ñu daan tuddee éducation civique. Mhm. Euh, cour yu gàtt la. mais yu ama am solo la. te booy seet sax da ngay wax ni. ñun suñu ministère bi dañ ko tuddee ministère de l' éducation. du ministère boo xam ne bii instruction moo ko tax a jóg mais éducation yar moo ko tax a jóg. Mhm. te yar boobu dafa am ay sookul dafa am ay ay ay ay principe yoo xam ne ci lay sukkandiku pour nga mën a atteindre sa objectif. Mhm. loolu nag société bi nga xam ne bii ñun ci la ñuy dund. xale yi dafa am kër gu ñuy yeewoo di fa xëyee di fa gonte. nekk fa ab diir muy temps boo xam ne bu ñu déterminé la. nga xam ne xale bi dañ naan heure ba heure heure sàngam ba heure sàngam ci kër gi la koy def. waaye heure sàngam ba heure sàngam ci barabu jàngukaay ba la koy def ñàkkut itam heure sàngam ba heure sàngam mi ngi koy def ci mbedd mi. yooyu yëpp na dañ ko war a canaliser. pour que suñu objectif ci xale bi mu nekk loo xam ne lii luy jur njariñ la. benn bu ci benn bu ci bu ci échec rek. day impacté day day day day day jeexital. léegi nag. maanaam ce qui prouve que depuis bas âge bi. dès le bas âge a commencé tàggat nit ki formé ko parce que xasee bu màgg moom. comme li ñu wax rek xam nga bant. bu euh, mm-hmm. ca tooy ba. nga koy jubal ba la di ko mën a mm-hmm. jubal. mais bu xasee ba dëgër moom. su xasee dëgër jeex na. boo ko ne danga koy jubal da nga koy dàmm rek te soo baa. foofu nag foofu nag foofu nag la foofu nag la responsabilité jàngalekat. Mm-hmm. amee doole. gis nga jàngalekat li tax ñu war leen a gën a fullaal gën leen a jox doole gën leen a bàyyi xel ñoom ñooy ñooy tabax xam nga suñu njiit yeeg politique yeeg ñooñu ay infrastructure la ñuy defar mais ñi nekk ci biir infrastructure yi wala ñi koy doxal di ko véhiculer ñooña ña leen di tabax jàpp naa ne ñu ëpp ñu ëpp doole ci taxawaay ñi nga xam ne sax ñooy defar defar tëli yeeg pont yeeg autoroute yi mm-hmm. yàlla xam na ko mm-hmm. li tax ma wax ko itam mooy dinaa ñëw ci point de vue l'islam parce que l'islam si mhm. am na ci gis-gis. a pas de souci. waaw danaa ci danaa danaa ci ñëw. ci mhm. ci lu gàtt mais dama doon joxe rek. Mhm. benn benn benn aperçu bu gàtt. ci civisme ni mu amee njëriñ ak ni nga xamante ni bi dañ ko xaw a cof ci biir programme yi. gis naa sax programme national d'amélioration xaw ma. Mm. du civisme et de la citoyenneté yooyu gars yi daan ko mais boo xoolee. dafa des ñi koy xam sax bariwut. la et pourtant mm. yàlla xam ne ne réussir réussir yëpp. atteindre seen objectif. ci citoyen modèle de citoyenneté mhm. ak civisme ci lañ ñorowee. muy jël ay ñoom Chine. Mhm. jëlal Chine jëlal Japon jëlal les maanaam bépp réew bu mhm. développement dañu la mais développement immatériel moo moo moo ëpp moo ëppati njariñ. te bu ñuy wax immatériel bi ñu ngi ci jublu ki ñuy préparé. nit ki en tant que tel en tant que citoyen en tant que koo xam ne vraiment moom moo war a doxal euh, euh, levier bi nga xam ne bii moom moo war a booster. li ñu soxla mu jëm ca kanam. Mhm. ki ko war a ki ko war a ki ko war a ki ko war a waajal ki ko war a ki ko war a doxal dañ ko war a waajal. Mhm. léegi nag ci biir loolu nag ci li ñuy jàngale xale yi ay del wax wax ju baax. bul di saaga dégg nga. bul di mhm. tooñ bul di nàngam loolu xale boo ko ko teelu te jàngal. day dem ba àgg foo xam ne ci ci ci ci niveau ci at. bu boobaa conscience am lu mu ko may rek day jàpp ni loola la. alors que bu fekkonte ne teel nañ koy éduquer. teel koo wan ni ko lii baaxut. mooy ci biir kër gi ca biir kër ga d'abord mhm. kër ga day tàmbali. Mhm. mais école ba mooy mottali. Mhm. te mbedd ba tamit am na beneen réalité. waaw mbedd ba am na beneen réalité parce que non moom li ko tax a jóg mooy. daanaka euh, yàq lañ tabax ca kër ga ak lañ defar ca ak lañ def moo tax mu nekk ci diggante bu doy waar. parce que xale pour mu ñëw ci diggante boobu muy diggante muy mbedd mi. mbedd mi pour mu am fa am fa chance la mu jàngee ca kër ga jàngee ko ci école mu la. donc ce qui prouve que euh, parent bu nekk war nga saytu xool sa doom ñan lay fréquenter. très bien maanaam nga accompagner ko mu dem jàngi mais aussi après la descente nga mun ko seet bu baax a baax xool ko. très bien mu bañ a dugg ci yenn groupe yi nga xamante ne amaana mun na indi loraange après. am nañ ci am nañ ci responsabilité bu mag. Mhm. waaw parce que yàlla bi mu lay jur jox doom. Mhm. bañ na ko ba defa ne yowmal xiyaam xëy na mhm. foofu dafa may may ma dugg ci. Euh, point de vue l'islam gis nga doom. yàlla dafa am koo xam ne kii da ko sàkk sàkk muy góor ak jigéen ku góor ki day toog ñu jar ko jàngal ko mu xëy na am na ay diplôme wala bu dee métier am na fexe na ba xereñ na ba am na ay mokkal na benn métier la muy njëkk a def bis bu demee ba ajo ajo âge wu âge wu takk soxna jote xelam li muy njëkk a jàpp mooy damaa war a wut soxna su ko yàlla mayee soxna aussitôt li muy njëkk a li muy njëkk xalaat mooy ndax yàlla na ma yàlla may doom su su ko yàlla mayee doom ba noppi léegi li muy progressivement lu muy gën di dem projet yi mu tegoon yi mu naal benn par benn lay jéem a xool nan la koy. nan la nan la nan nan nan la koy réussir. Mhm. ci biir loolu nag dama ci jël côté côté doom ji rek parce que nit noonu la ko yàlla bind mais gis nga bi ngay ñaan doom moment bi ngay ñaan doom am na koo xam ne kii ñaan na ko ba sonn mais mënu ko am. Mhm. ñaan na yàlla doom ba sonn mënu ko am. Mhm. mais yow nga ñaan ko rek au au euh, bout de maanaam ci diir bu gàtt yàlla jox la ko. foofa nag da ngaa war a delloo yàlla njukkal da nga ko war a sant. parce waxoon na ne man maa sàkk nit ñi attention am na ci loo xam ne bu leen ko jiñ doomu aadama. ñii danaa leen may ay doom sax doom yu jigéen. ñenn ñi am na ñoo xam ne nag lu ñu bëgg bëgg bëgg doom yu góor yu jigéen kese laa leen di may. am na ñoo xam ne lu ñu bëgg bëgg doom yu jigéen itam góor dong la leen di may. c'est la nga déggee ci ne kon ñii góor dong la ñu am ñii jigéen dong la ñu am. mu ne waaye am na ci beneen catégorie boo xam ne moom du am dara. Mm-hmm. ñeenti éléments yi la yàlla sàkk ñii dañuy am doom yu góor ñii am doom yu jigéen ñii amandoo ñaar yëpp ñii ñàkk ñaar yëpp. Mm-hmm. léegi na yow yàlla jox la ci nga bo nga bokk ci catégorie ci benn ci ñetti yi c'est-à-dire ñàkkuloo. Mm-hmm. soit may na la benn do mën na may na la njaboot gu góor wala may la njaboot gu jigéen wala mu mayandoo la ñaar yëpp. Mm-hmm. léegi nag foofu nag responsabilité bu rëy rëy rëy parce que yaa ko doon ñaan yàlla te yàlla da maanaam am na am na ay charte yu mu la tegaloon yoo xam ne bokk na ca bu la ko mayee nga def ko. mu ne am na ci ñoo xam ne dañu jàpp ni njaboot ak xéewal laag ak yu mel noonu bon d'accord xéewal la parce que euh, da ngay am foo xam ne boo fa àggee ci âge sa doom rek moo lay mën a assister. Mm-hmm. loola moo tax bokk na ci ñu bari ñu koy ñaan yàlla même yonent yi bi ñu koy mm-hmm. ñaan yàlla dañ naan euh, yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nag ma may njaboot goo xam ne ëllëg mu fi jógee lii ma tàmbali ci lu baax mu mën ko wéel mm-hmm. donc ki nga xam ne kii yàlla jox na ko doom responsabilité bu mag moo tax mu ne bi muy wax ca ca ca ca saar wo gàtt wa su ma la tus allu na yow ma isin ani ci alxeeku mu boobu muy boobu bi mu koy tëjee dafa ne bàyyi leen xel ne kenn ku ci ne la ma la joxoon ci xéewal te xéewal dafa yaatu du alal kese mais am na ñu ne sax bi ci gën mooy yàlla jox la njaboot gu baax gu jub nga éduquer leen ñu war a mel ñu mel ko ëllëg nga dem ba àgg ci âge foo xam da ngay soxla ku la dimbali ñoom ñu taxaw la loolu mooy ngën ci xéewal leneen loo tudd xéewal sax daanaka du xéewal loolu moom loo mën a am ci kaw suuf te amoo lii daanaka da ngay jàpp ni des na lu baree baree bari donc pour ñu delluwaat dellusiwaat ci suñu suñu suñu thème bi mhm. foofu nag la islam di waxee ne civisme yemul ci cadre maanaam luy doxal pénc mi kese xam ne man waruma tooñ waruma jël alalu jàmbur waruma saaga waruma saw ci mbedd waruma waruma waruma yu bari yooyu da wax ne non seulement loolu non seulement xam nga ne waru la mais yow loo ci def loo ci def ci lu ñu la digal nga war koo def tuyaabal la ko yàlla di bindal bu dee lu ñu tere nga bàyyi ko yàlla tuyaabal la ci bindal waaye bu dee lu ñu tere nga def ko bàkkaar nga cay am ci ab jullit te gis nga mm-hmm. kon foofu beneen dimension la yéegal moo waral gis nga boo xoolee yonent bi sallallahu alayhi wa bi ko yàlla di yónni mm-hmm. ko ne walladi baata fi l ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi waaye wa yuzakkihim mm-hmm. tazkiya boobu mooy defar ruu nit ki tàggat ko ba ba muy xemmem du bëgg lu baax di gis di gis lu baax di ko xemmem mm-hmm. maanaam nan laay def ba yëg ni man daal tey ji ñun suñu sama man ak sama xarit yi dañu war a def benn opération suñu quartier bi jàkk ji dafa gëj a dañ ko gëj a nettoyer. nettoyer nañ daal di nañ daal di nañ daal di mobiliser suñu biir wut suñu matériel nettoyer ko. Mhm. ci jàkka ja la tàmbalee. ñu toog ba yàgg ba ñu defee jàkka ja jàkka ju nag mu ne nag école bee ci des. Mhm. yaa ngi dégg de modèle de citoyenneté commencé ñu. Mhm. école bi suñu école la suñuy doom ak suñuy rakk ñoo fiy jànge kon ñun nañ ko nañ non seulement euh, dañ ko war di setal mais dañu war a xool sax ba euh, fenêtre yi ak porte yi ndegam am ñu ci yàq ñu def ay effort personnel tant que ay jeunes. di fexe ba réparé waat ko. gis nga. yemuloo ca la nga ne tey jii nag dañuy gën a yaatal suñu op suñu hôpital wala centre de santé wala poste de santé bi sax wala case de santé bi. yëg nañ ne nit ñi dañ fay dugg si dégg nga vingt quatre heures sur vingt quatre. dañoo bëggoon tey jii def benn opération. ñu désinfecté ko. nettoyé ko. ba mu set ba nga xam ne bii moom comme ñun ñëpp ku ci feebar fa lañ lay yóbbu. dafa war a propre. Mhm. pinturaat ko. ñoom ñooy jënd cotiser seen bopp jënd seen peinture defaraat ko décorer waat ko ba mu gën a rafet. Hmm. bu dee amoon na yu ca manqué ñu xool nu ñu koy jënd ci ay ay barabu toogukaay hmm. bu dee laaj na tey ji ñu def benn reboisement ñu def ko. Hmm. jëmbat fa ba yàgg nga ne armeel ya gëj nañu koo bay. fi mu ne yaa nga sëq sëq ba booy dugg sax ay xaaxaam topp la. tey jii nañ dem bay ko. mo def mobilisation mu gën a yaatu loo loo gën a def moo tax ma ne la base bi ci commence ci kër gi lay tàmbalee. civisme dem na nga toog ba yàgg yow ci sa wàll bopp gis ni. même bu ñu toogee di lekk di attablé wu. léeg-léeg kudd yi day manqué. foofa doo wax ne nañ wuti kudd yow yaa jékki-jékki rek jëndi kudd indi indi. Mm-hmm. ñu ne waaw kuy kuy indi kudd yu bees yi. ñu ne ah mm-hmm. diw moom moo demoon marché jaar fa rek daal di koy jënd xoolal. xoolal acte acte acte bu rafet boobu. Mm-hmm. loolu yaa ngi joxe leçon xale yu tuuti yi nga xam ne. ñoom xamuñu woon sax ne ndekete nit war na dañoo jàpp ne paa bi wala mère te kii mooy seen grand frère jaar marché ba rek jënd ay kudd kudd kudd doo nga manqué woon léegi nag imagine toi kooku tey ji ñu toogoon ba yàgg ñu ne euh, xaru xaru xaru kër gi dañ ko war di dañ ko war di toppatoo mu ne ñun nañ nañ taxaw jàppale ci paar yi mhm. mhm. maanaam daal li ma bëgg a wax mooy bépp jëf ju baax mhm. yoo xam ne ji nit ko war na koo def avant ngay génn ca mbedd ma tàmbalee ko ci kër gi léegi nag boo ñëwee ci mbedd mi nag ci pénc mi nag nga xam ne nag yow ak waa pénc mi yéen a ko bokk sànq li nga doon baal ma de sànq li nga doon wax maanaam ay nettoyage set setal hôpitaux yi peinture waat mm. soobaa mun nañ ne comme day euh, dëggal li ñuy wax rek ni jaaki bëgg sa réew dafa bokk ci jaamu yàlla mm-hmm. Mm-hmm. ay absolument mm-hmm. loolu am na ñu ne xadis xadis la sax bul watan minal minal minal iman sax bu wér waaye ala kulli xaal mënees na koo jariñoo ndax lu am njariñ la mooy bëgg sa réew dafa bokk ci ngëm yàlla foofu nag nga yëge ni kon la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne euh, dem na ba ci yow jullit bi yëgal ni da ngay boole ci say responsabilité mhm. ne saa yu ma génnee di dox ci meddi mi sax aw ma droit romb luy gaañ nit te duma ko for seet poubelle ba ma def ko fa par exemple nga romb bouteille bu ñu toj xottu bouteille xam nga nit mën na faa romb mhm. même nit ku silmaxa sax mën na faa romb joggi ko mu gaañ ko. nga ne lii balaa cee kenn loru xaaral ma jël ko defar ko ba mu jekk. ma seet fu poubelle nekk rek mu yóbbu ko fa teg ko. wala nga romb benn benn benn bu mag. boo xam ne dañ ko teg xale yi léeg-léeg dañuy def seen petit camp di football. waaye suñu paree dañuy dem seen yoon. xamuñu ne nit kilifa mën naa mën nay waaxu yàkkamti. te te du gis brique bi ñëw rek fokkataloo ko. tànk ba foxoj te loolu maanaam ña ko fa defoon ñoo koy waral ñoom ñoo waral loraange googu mu ne la teg ko ci koñ ba ci ruq ba nga xam ne bii. Mhm. kenn du ko joggi. te su boobaa nit ci dina ci am tuyaaba. da ciy am tuyaaba. ndaxte léeg eh, jaam ji mën a def benn acte bu ndaw mu xeeb ko fekk yooyu la ci kanam suñu borom subhaanahu wa taala. wallaay mhm. mhm. te loolu. gis nga euh, soxna maam. ëpp naa xeeb. gis nga jëf ju baax. yomal xiyaam yonent bi nee am na ñoo xam ne. la leen di jàllale àjjana sax ñoom ñoom duñ ko xam. dëgg benn acte bu tuuti. boo xam ne bii dañ koo def. dégg nga jublu ci nag ne lii ba ma koy def yàlla rek moo tax man ma ko def. Mm-hmm. ak bëgg sama réew moo ma ko jaraloon. Mm-hmm. nit dem na àjjana. Mm-hmm. nit dem na àjjana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni. nit dem na àjjana te la ko ko may mooy fekk lu lu nar a lor doomu aadama ciw yoon mu dandal ko. ba nit loru ca. Mhm. moo ko may mu dem àjjana acte boobu te ñenn ñi nekk fii di julli chaque jour di woor waaw dinaa fi la yu dul jeex nga yaakaar yow <laughs> yaa yaa yaay p pee ah. acte bu ndaw acte bu ndaw mhm. da ngay xool koo xam ne day nekk ci benn quartier mhm. yàlla def mu dëkk ak ñoo xam ne ñu néew doole lañ yàlla ma ne ko gan même bu ko mënewul gan sax en tout cas moo leen tane muy xool ci biir quartier bi ñi nga xam ne ay néew ju doole lañ day bàyyi ba léeg-léeg xaaju guddi jot mu am genn kër gu mu fëgg su ko defee bu fëggee borom kër ga xamante nañu hmm. waxtaan mu ne ko dama fi jaaroon doon la ziar rek jékki-jékki rek bàyyil ko benn enveloppe dem yoonam fekk day xam situation yi borom kër googu di dund hmm. nga xam ne moom ba mu koy def jubluwaayam hmm. mooy kii sama dëkkandoo la sama wëlëral nit ku baax la ak njabootam ñu baax lañu donc mais nag loxoom jotul ginnaaw donc may naa naa naa participer participer ci li ma yàlla wërsëgal ma di ko ci jàppale na ñoo xam ne fii may wax yow ni jàkka ja. dañuy jékki-jékki rek ñu ne courant bi fay nañ ko te du ñu xam ku ko fay. am na jàkk yoo xam ne morgue ya. morgue ya. ay càngaay dañ na dañuy am na kay am na ñoo xam ne dañu naan képp ku fa faatu. damay ñaan ngeen may ma ma man ma la koy sàng man ma jënd ko. lépp rek ñoo koy jënd. lépp ca parfum yaag. ci sutura ca percale yaag tissu baag yëpp. Mm-hmm. ñoo koy jënd teg te doo xam kan la. Mhm. ci sutura dañuy def te duñu gis. dañuy def voilà def te doo ko wax doo ko wane. Mhm. Mhm. ndax yàlla ñuy wax naan sax moytu leen di sàkk sarax ba noppi nag yàqaat yàqalaat ko seen bopp. waaw parce que da ngay gis ñuy def actu yu baax. di ko mais dañ koy wane foog ñu médiatiser ko exactement exactement loolu nee na nee na lu jar a moytu la. ndax nee na léeg nit defal nit dara ba noppi naan ko bul woon ak man ëpp naa wax. waaw. waaw wala nga defal nit dara ba noppi dem di ko nettaliwaat feneen. nee ëpp naa def. laa tubtilu sadaqaatikum bil manni wal aza nee na moytu leen loolu jullit mooy ci waa cadre modèle civisme bi ma la doon wax mhm. non seulement yàlla dalay wax ne buggul ngay wane tuuti ngistal wala di wane ne yaa tane gaa yi mhm. tax tax nga nekk ci pénc mi di ko manifester ëpp naa def mhm. loolu boo ko defee yow man yàlla la ma la ca santoon njariñ la da koy ñàkk bu yomal xiyaana da ñëw ne ah pourtant yàlla man maa defoon nangam la man nit ñi gis ko gis nañ ko mhm. mhm. da nga bëggoon nit ñi ne yaa ko def mhm. wax nañ ko loola nga si soxla woon am nga ko kon fii doo fi am dara moo tax lu jaram moytu la di def ba noppi di wax loo def def ko ngir yàlla ce qui ce qui prouve que kenn ku nekk boo participer ci euh, avancement réew mi te nga mhm. def ko ci sutura mhm. man ma def ko yow nga def ko faj fay def ko ñëpp di ko def du mhm. coup dañuy jékki-jékki gis ni am benn Sénégal bu set wecc bu propre ndaxte di nga gis fii euh, ci réew mi ka nga xamante ne dana lekk ba pare sandi yoonam new ci déedee bedd mbuur la yoonam new ci or l'islam daf ñu koy tere yaa imaam loolu am loolu am pourtant dëkk bi ñuy wax Rwanda bari ñu koy naw lool ci ci ci vraiment ni mel xam nga la mooy s secret maam su ma benn waay bu fa bu fa bu fa bu fa nekk yàgg fa lool. Mm-hmm. ñu ne ma benn secret rek lañ am. Mm-hmm. mooy nangu kilif kilifteef. Mm-hmm. mooy seen première euh, nu mu tëti euh, principe. dañuy nangu maanaam kilifa bu waxee dañ koy jox cër. su ne def leen. ñi def dañuy def parce que xam nañ ne du leen wax def leen lu baaxul. lépp lu mu leen wax def leen ko rek dañ koy dal léegi nag hiérarchie la. kilifa gu mag a mag a mag muy tàmbale ko ci président de la République moom mooy njëkk a jaar yoon ñi nga xam ne ñoo nekk ci ronam ku mu jox ndigal da ngay sawar ci def lu tax parce que damay jéem a mel ni moom. Mm-hmm. yow tamit am na ñu nekk sa ron maanaam tey jii tàmbalee ko ca président de la République nga ñëw ci premier ministre ñëw ci ministre yi ñëw ci mm-hmm. dégg nga directeur généraux yi ainsi de suite. Mm-hmm. maanaam institution yëpp ñu ko jiite ñoom ñoo njëkk a jubal société bi tam citoyens yi teg teg ci seen bët. moo tax foofu dañuy ruus sax def naka sa maanaam taxaw ci mbedd di saw. xel xalaat ko. Mhm. waxuma taxaw ci mbedd di saw waaye nga benn waay. doon na ma nettali xisa bu xaw a xaw a reelu. Mhm. mais da cee da da dafa dafa dafa dafa dafa bari dafa bari am njàngale. Mhm. dafa ne ma bi muy door dem Europe première fois mu doon ne cëpp. <laughs> jóge ci àll ba rek xam nga nekk ab moodu moodu. kaw kaw la woon comme man. nee na ma ñëw rek. daal di xiif jàpp ma ma romb fi ñuy jaayee banaana rek ma daal di jënd banaana <laughs> daal di xéewlu xéewlu taxi la de nee damaa dugg taxi <laughs> ma xéewlu ba noppi rek jekki-jekki rek daal di dindi vitre bi rek ni ko xër fekk waa yaa ngi dawal <laughs> nee na tubaab la de nee waa ji waxu ci dara boolewu ci wax mm-hmm. léegi fa ma jëm ak moom ma jekki-jekki rek gis ko mu demituur mm-hmm. bi mu demituuroon ndekete li waa ji sànni moom la doon jël nee na man waa ji waxul ak man ba léegi mais damaa jékki-jékki rek. ko mu ma ne ko waaw yow foo jë mu ne non maa ngi ñëw. Mhm. nee na ma mu wàcc daal di ñëw gis ba ma sànni woon. waaw la jël benn papier ko ciy teg lem ko ba mu jekk. Mhm. waaxu ba ci benn poubelle mu ko fa daal di ñëw taal daal di continuer dara. <laughs> gis nga yooyu laa lay wax ne xale. Mhm. da nga ko koy teel a jàngal. ci ngone. moo tax gis nga am na yu am solo yoo xam ne ñu ko daan def. te bàyyi ko mi war nañ ko dellusiwaat mais gis nga xale yi même matière bu ñuy wax éducation civique. dañ leen ciy war di primer leen jox ay prix. maanaam ku gën a fonk levée de couleur ku gën a fonk maanaam yi nga xam ne yëpp moo mooy mooy mandargaal civisme. Mhm. yooyu dañuy seet ban xale moo ci man ci biir école bañ ko yàpp ci biir école yi. Mhm. ci biir école ñu ne kii moom mhm. mooy xale bi nga xam ne moom mooy modèle. parce que vraiment civisme ni mu ci mel macha allah. yaru na teey na. dal na doo ko gis mu bind ci miir yi doo ko gis. yooyu yëpp la ñuy dajale xale yëpp di ko dégg de. moo ko may prix bii. Mm-hmm. dinañ ci góorgóorlu ñoom ñëpp beneen yoon nga dégg ñu koy njëkkante ñoom nag nee ma foofa loolu mooy seen secret mm-hmm. ci bas âge bi ci la ñuy yar xale yi xale yi di màgg di màgg ba forum ñoom dañuy njëkkante koñ sàngam man maa defar gazon yi man maa koy maa koy maa koy arrosé ba a mel maa koy coiffé maa koy maa koy maa koy mhm. Mhm. Mhm. finalement mujj gi koñ bu nekk bu defee noonu boo foo génn ci mbedd mi kay dëkk bi yëpp noonu lay mel day rafet day rafet loolu donc mooy seen secret te bokk dëkk mooy tey ji ni kenn ku nekk nga euh, def mooy taatu gaar ba nga xam te ne di ko peut-être ci devant euh, sa sa buntu kër tout ça non seulement acte de civisme la mais aussi di nga ci am tiyaaba ci côté diine ndaxte day doon la nga xamante xasee dëddu àdduna sax. Mhm. Euh, di nga am tiyaaba ba nga xam te la fekk ba fa nga tëdd. wallaahi si ki newu ci de. Mhm. Mhm. maanaam dafa bokk ci yi nga xam ne. comme ni nga ko waxee ci cadre diine. dafa am li ñuy tuddee sadaqa jaariya. mooy sarax boo xam ne boo ko xasee def. da topp. même boo wanee ginnaaw. baatu yonent bi sallallahu alayhi wa dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa tudd. dafa tudd euh, ñetti mbir. yoo xam ne daf ni képp ku ko def. yàlla mën na laa defal bis boo fi bàyyi ko yool ba da lay fekk fa nga tëdd. Mhm. ñu di la ko pointeel ay tuyaaba yu dul jeex ba këru yàlla di àtti jaam yi. xam nga loolu dara dara da dara daxu mhm. te loolu ba mu koy lim sadaqa jaar yi ca la bokk mhm. dégg maanaam euh, dafa ne doomu aadama saa yu génnee àdduna jëfam yëpp dafay dagg ba mu des ñett illa min salaasin sadaqatin jaariya moom mooy sarax boo xam ne da nga koo defoon mooy li ma la doon tuddal nii yu mel ni nga xam ne yu baax baax yooyu nga xam ne moom la war di jàngal xale yi mm-hmm. ni leen da ngeen koy def nag avec désintéressement bu leen ci sax surtout intérêt mm-hmm. maanaam bu leen ci calculer naan naa naa naa ko def pour mu mën a am benn contrepartie boo xam ne dana ma dikkal déedéet yow da koy def fàtte mm-hmm. soo ko defee fàtte rek xam nga kañ la la yàlla di fay loola da ngay soo ko laajee waaw man lan laa defal yàlla ba tax lii mu génn ma ci. danaa da ngaa fàtte yow am na loo mësoon a def acte bu rafet. dëgg la nga defee ne yow nga ko def. kenn kenn kenn nu waaye tey jii. lii mooy lii mooy lii mooy pay. la tabax uh-huh. jàkkaak tabax école ak tabax daaraak. yooyu uh-huh. yëpp ci la la nga tabax ay barabu uh-huh. fajukaay yooyu yëpp ci la bokk. wutal nit fayal nit ndox. dégg nga wala gasal ko teen. forage forage ainsi de suite yooyu yëpp. dëgg la maanaam acte de bienfaisance yi bari nañu. bari defee loolu daal ñu ngi ñaax sénégalais yëpp. ñu gën cee góorgóorlu xam ne civisme daal. ci nun lay tàmbalee d'abord. waaye njariñ li lay dellusiwaat ci ñun encore lu ci waay defit ñu xam ko ko moo tax maa ngi rafetlu bu baax. nii nu gaay nii gars yi commencé di defar. di mhm. defaraat ak a defaraat. ni mhm. ngeen ci accompagner. Mhm. muy équipe bu bees bi ñu ko moo gën parce bu ñu leen bëggee attaqué ci naan ñi dañuy yàq. fekk foo xam ne naan mbédum buur la lu waay neex def ëpp naa def parce que buur moom ñëpp a ko bokk kon kenn ku ci nekk na sàmmonteeg lañ fa war a def mu def ko mhm. luñ fa war a def mu mañ kaa def kon ñu euh, waxtu wi jot na euh, vraiment euh, di remercier bu baax a baax imam Adama Seck mhm. ndaxte waxtaan bi am na solo lool mhm. def na introduction def na développement def na conclusion ñaax na Sénégalais yi ce qui prouve que tey jii nii kenn ku nekk bu ñu buggee mel Chine. et je pense que waruñu ne dañuy toog di xaar lépp état di ko def. kenn ku mm-hmm. nekk ci Sénégal yi daal na góorgóorlu. Mm-hmm. xam ni war na euh, liggéeyal euh, réew mi. Mm-hmm. pour Sénégal jëm ca kanam ndaxte bu baaxee ñu la baaxal. bu bu yàqee aussi. ñu ñoo ciy perte kon na ci kenn góor na ci ñëpp. taxaw góorgóorlu acte de service bi ñu ñoŋal ko. ngir intérêt réew mi. Fatou di la jaajëfal moom it di ko bàyyi mu tàggatoo rek di ko remercier waaye tamit. avant ma koy bàyyi mu tàggatoo maa ngi nuyu sama copine de cœur Naba tamit. Mhm. waa ak dëppee euh, les mm. parents aussi maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp. merci beaucoup ñoom ñëpp Samba mhm, <laughs> xanaa di leen santaat bu baax rek ci invitation bi. Mhm. Euh, occasion bi ngeen ñu may mën a may ñu partager ak yéen. Euh, li nga xam ne ñun ay yarkat lañ ay jàngalekat lañ. donc jàngalekat moom boo ko woowee ci loo xam ne. dafay contribuer ci li muy def loolu moom da ciy sawar kon ñu ngi leen di jaajëfal di jaajëfal te ñi doon suivre ñëpp rek di ziyaare itam suñu mbokk yi nga xam ne parcelle gëm a jóge mhm. ak waa tubaay yi di mhm. ziyaare xalif général ak mbooleem ñi nga xam ne ñi maanaam ñooy xalifa généraux yi mhm. waaye di ziyaare itam mbooleem ñi nga xam ne eh, ñooy waa fédération daara alxuraan yi nga xam ne ñoom itamit macha allah ñooy ñu ngi ànd ak ñoom di liggéeyal solo mhm. ay yarkat yu mag macha allah di ñaan di leen ñaanal yàlla defal leen tawfiq ci liggéey bi yàlla mottali seen yéen yéen tamit amiin nekk daal li mu ciy xaar ko ci séentu yàlla na ko ci yàlla defal lu ko asalaamaaleykum wa rahmatulah amiin jërëjëf Mamou Diaby Gassama ak sa invité eh, a Adama Seck ci waxtaan bu am solo bi eh, di jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi doon eh, seetaan ci uh-huh. wàllu xarala gi di jaajëfal ajaratu Penda Diallo Gueye Bintou Fall tonton Pierre Cheikh Dieng ci son bi euh, di jaajëfal euh, tamit euh, ñi nga xamante ne ñu doon seetaan suba si ba tey ci coordination bi jaajëfal Cheikh Dieng Gomis di leen di